jëf eh, ak ki nga xam ne mooy xaadim Njaay Njaay sant gone la soo màggee da ngay wax sa waajur mu changé la ko Assane wàllu uh, nar nañoo wàllu waa assemblée national ndax ñoom daal dugal nañu projet de bi nga xam ni eh, daal day ànd ak Ousmane Sonko ci li mu waxoon ne la ñu jubbanti ñoom nag dugal nañu est-ce que président maam Mame Diop dina ko proposé assemblée national waaye ñoom daal dugal nañ ngir ñu jubbantiwaat yi fi Ousmane sunko mën a dikk def déclaration politique générale Sénégal jëm kanam. waaw Ousmane Sonko de. man néew ma du dem ensemble waaye gisuma ko ci ensemble bii gisuguma ko gisoo ko waaw lu tax te it acte yi ma gisagul ñu teg ko gisuguma ni acte yi dem la même suñ fi nekkoon di ko jéem a jubbanti soo ma juumul yow nee nga ma 15 jours la leen may. 15 waaw. waaw 15 jours yi nag loolu xaju fi. 15 jours sax léegi fukki dem de. voilà xaju fi. Mhm. te la taxit mu àppal leen ni leen 15 jours xam na ni bu ñu demee di ko jubbanteeg bu ñu ba ba ne ko kaay loola day jàll fekk na def na li war a def ba pare. Mhm. yaa ngi gis ni Koura Macky maa ngi koy siyaare keroog gis naa benn vidéo am mu ne Ousmane Sonko lu tax du ñëw ñi ngi ñaa may woo di ma ñaan naan bu ñëwee bu ko wax waxee Adji Sarr mais dama ko koy wax dëgg ndax Adji Sarr ab sénégalais la buy ñëw moom maa ngi koy xaar ba mu ñëw ak affaire yooyu noonu c'est kon mu nga xam ne la ma la njëkkoon a wax ni la ñenn ñi moom est kooku nga baal ma foofu bul dem est-ce que lu kooku train bi bàyyi ko fi hmm? ndax loolu justice pare na ci pare na mais moom bu ñëwee ensemble mën nañ ko see laaj kon waaw mooy mooy nag ko li ma la waxal keroog te ñuy xëccoonte ma ni la kon assemblée. Mhm. daa ni kon wax lu ñaaw fa moo fa ne. waaw ah, la wax kon wax ju ñaaw rek la waaye kon assemblée terewuñ loolu. waaw kon nag kon man nangu naa ci Ousmane ko bu mu dem. de dama ne assemblée xam nga lool loolu yàgg na fa. bu dee lool la moom bu mu dem. loolu yàgg na fa assemblée lan la may nañ yow mi ñëw taxaw bu la neexee sax nga saaga ki nga xam ne moo toog. Ah, waaw ah, saaga ko xas ko ba mu ràpp ni ko nag danga may tontu si li ma la wax. lu tax léegi mayewuñ ko fayu. Hmm? ko fayu bu ko neexee fayu am na ko fay woon ñu tëj ko Macky tëj ko déedéet ñaari député hmm? kee bi mu ñàkkee teggeel sëñ Moustapha hmm. ñee duma ko dañ leen a ah. tëj mais ñee doole acte la boo xamante ni yëpp xam nañ ni affaire ah, politique bu ñu mayee saaga moom war nañoo bàyyi duma non non dama ne ñëpp xam nañ ne affaire politique la woon ok c'est la sa nekkoon mhm. mais lii dañ nga di Sonko daal gisoo mu dem Sonko tey jii ñu ko waxee bu ko Coura Macky waxoon dara bu fekkee ni moom mën naa wàcce boppam si ñi koy ñi koy saagaak yooyu mu fayu wala mu wax leen dara su boobaa moom la ndax man ministre yi Macky Sall boo masaan gis gars yi dal ci seen kaw bu ñu ñëwee duñ tont ci loolu dañ naan maa ngi dégg sax diw nangam nangam affaire yooyu tontu tontu bu woyof jàll ci li leen fa indi kon nag moom bu fekkee ne mën naa ñëw toog gars yi laaj ko bu fi dee dina fa am ñoom Guy Marius Sagna ñoom Cheikh Serigne Cheikh Thioro laaj ko mu tontu ñi si des it waa benn Bokk Yaakaar bu ñu ñëwee ñoom it xëpp si cere ji suuf ndax it loolu terewuñ ko Iran Irak raak xas ba mu ràpp ndax it ñaa ngi dégg gars yi naan Ousmane Sonko mënut a dégg lu mu déggutoon mhm. noo mënatul dégg dara non non dama ne wóoru leen ba xam Ousmane Sonko doon na dégg wala déggul ndax da ngay ñëw toog si télé yàq ko lu mel ne xeme man mhm. naa am Ousmane Sonko seetaanu ko mën naa am mu ignoré ko ndax am na ñoo xam ne seetaan nga leen di dañ dañ lay puus jàll dem si keneen mhm. mais ki nga xamante dafa jàkkaarloo yow ni la yow Ousmane Sonko wax la lim lay wax lépp mhm. kooku bokkut ak lu nga xam ne da nga ko def ab vidéo dem kon nag ñi na dem mënut a dégg lu mu déggutoon déedéet bokkul léegi nag na xaat bu baax a baax lii mu may waa waawallu fii ñu dugg si affaire bi et mënuñu si tus hmm. waaw dara lañ si mënul mënuñu ko leneen xam nga dañ leen wutal app bu amutoon app waaw mais député yàgg naa def loolu non non dugal dafa am app Ousmane Sonko dana war wax ni leen man kat dama leen a wax dem leen ngeen réglé ko bu ngeen ko réglé pare ngeen woo ma ñëw toog mhm. waaw su boobaa dinañ xam ne Ousmane dana dem mais bu ne la fii ak 15 jours moom parewul pour dem te du dem kon jàppoon yow dina dem jàpp ma ne dina dem ok Ndiogou noo